daanak lépp yemb ngir seen voyage ak seen séjour ca Côte d'Ivoire ngir teewee compétition bu mag ci football africain ci wetu équipe nationale du Sénégal suñu sukkandikoo ci kàddu président douzième gaynde son excellence le président Macky Sall mi nga xam ne mooy chef de l'État mais du reste aussi nga xam ne mooy premier douzième gaynde day joxe instruction à son gouvernement ñu teg équipe bi ci ay condition de préparation et de participation ànd ci ak waa ministère des sports ak waa fédération mais dans la dans le même dafay instruire son gouvernement pour mu teg douzième Gaindé dans d'excellentes condition de voyage et de séjour te moom la def donc boobu ba léegi ñu nag ministère ak l'ensemble de ses services ñu ngi ciy liggéey liggéey bu mucc ayib douzième Gaindé sax jamono ji dañoo pare ngir ñu wone seeni taxawaay ci wetu équipe nationale ñu poussé lan ba ci compétition finale ngir ñu mun a jël ndam lii ak slogan manko wuti ndam lii mais su nu waxee deuxième gaynde mooy incarné sénégalais yëpp ndax à part bi nga xam ne Aliou Cissé lay joxe ñeneen ñëpp ay deuxième gaynde lañ moo tax euh, yàlla def tey ñu nekk ci bopp bi ñu ànd si ak ñi nga xam ne ñooy comité exécutif ñu ci liggéey liggéey bu am solo nekk ci waajtaay bu am solo aussi ñu avancé avancé bu am solo nekk ci nag vraiment dynamique gu Sénégal maa ngi ko wuti ndam li xam ne aussi disam ngeen mission bi am si une mission régalienne ci fàttali CAN 2023 danañ ko amal du 13 au 11 février ca Côte d'Ivoire